Serigne Saliou Mbacke jërëjëfati jërëjëfaati Serigne Béthio Serigne Béthio jaamu Serigne Saliou jërëjëfati asalaamaaleykum mbokk jullit yi ngeen waa àdduna maa ngi nuyu mbooleem mbokki murid yi mbokk taalibe yi bàyyiwuma kenn tijaan xaadal laayeen ak képp ku may dégg di jiital sama kàddu di siyaare di nuyu suñu xalif général des mourides muy sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke di sant bu baax di nuyu it sëriñ Cheikh Mbàkke mu sëriñ Saaliw ak mbooleem njabootuk sëriñ Saaliw bi ñu leen di siyaare di santaat bu baax waaye di ndokkeel it suñu xalif général des Mourides ci màggaluk sëriñ Tuubaa gi ñu génn di ko ci ndokkale te di ko ci ñaanal ñu yàgg ko yàgg àndee mu yàgg ñoo jiite yàgg ànd ak moom di fekke màggalu Serigne Touba gi di santaat bu baax di ko ci ndokkale di ndokkale mboolem njabootu Serigne Touba gi ñoo ngi ñaanal xalif général ak mboolem njabootu Serigne yàgg fi lool te gën a wér. mbokk taalibe yi Daaru Salaam Matlabul Fawzeyni Nuuru Daarayni waa Touba kër sëriñ Touba mu soxna Batoor Saliou Thioune waa Xelkom. soxna Adja Saliou Thioune man soxna Aida may santaat sëriñ Béthio bu wér di leen ndokkale ci màggaluk sëriñ Touba gi génn muy bésub 18 safar am ci ak cant gu rëy sama digganteek sëriñ Béthio ngir ànd bii ñu àndee liggéey bi ma leen ciy santaat bu wér di leen sant ci pas-pas bi ak yitte gi ak pas-pasu liggéey bi ci ngor gi ci sag gi ci ndam li ci àndandoo bi ci bennoo bi ci liggéey bi nga xamante ni sëriñ Béthio dénk nañ ko muy ànd liggéeyal ko muy liggéeyal sëriñ Saliou may santaat bu wér nag di leen jolal samay kàddu cant ci lépp ci rafetaay bi ci jàmm ji waaw barki sëriñ Saaliwu maa ngi sant bu wér ànd bi rafet na àndee nañu ko ak mbooleem daara yi nga xamante ni sëriñ Béthio boole na ko ñun ñu ànde ko ci màggalam gi muy 18 safar gii di màggaluk sëriñ tuubaa gi waaw te lépp di sàkk ak ndam ku nekk def ci lu mën ak lu mu mënul defee ko noo xam ni fooxe na suñu njort ndax ndigal kat dañ ci am sëriñ Saaliw moo ne sëñ Mbacke ne sa taalib yi nañu fonk màggalug sëriñ Touba gi nañu fonk gàmm gi nañu fonk xasaayit yi ak 17 avril bi kon bu sëriñ bi dogalee ñu génn ci di santaat sëriñ Saaliw bu wér wax dëgg yàlla lépp jaadu na ci man ma wan leen ni kat béggee naa leen te sant naa leen muy soxna Batoor ak mbooleem Touba Kër Serigne Touba muy Soxna Adja ak mbooleem xel Xelkom waaye muy it Daaru Salaam Matlaboul ni Nuuru yi Daarayni muy mbooleem daara yi nga xam ne it Serigne Béthio dénk na ma ko maa ngi sant jëwri nii ci biir réew mi ñu ne ak bitim réew maa ngi fekk kenn ku ne fa mu ne ak mbooloo ma mu àndal te Serigne Béthio sampal def la ngay jëwrinam te boole ñu ànd liggéey bi maa ngi lay fekk fa nga ne di la wan ni sant naa bég naa maa ngi sàkku sëriñ Béthio gën ñoo dimbali ci ndimbalam ak yërmandeem ba saa su ne nii ak taalibe war a doxee digganteem ak sëriñam mu dimbali ñu ba ñu sax ci nekk ci faw te jàmm ji yokk ndam yi yokk sag yi yokk te ñu yàgg koo fekkee te saa su ne doole ji yokku ngir liggéeyam bi dem ba faw ci barkeb sëriñ Béthio maa ngi sant ñëpp waaye it di leen jot liit ngir ñu xam ni waajtaayu gàmmu gi kat dugg nañ ci fi mu toll nii te daanaka yegsi na maa ngi ciy woote fii ma ye wootee nag maa ngi fi toll fii ci ngaabu di leen woo ci gàmmu gi danga xamal ni kat xam ngeen ni madinatu salaam la foofee la ko sëriñ ci daan defee foofee mu ko daan defee nag ak na mu ko daan defee woo naa leen ci bëgg ñëpp taxaw tem ngir kat gàmmoom gii nga xam ne ndigal la ci ñun moom sëriñ Saliou moo ñu ko digal jaarale ko ci sëñ Béthio ñu fexe ba góor góorlu ci te euh, màggal guddik nabi ñu gën gi mindeef kon maa ngi leen ciy woowaat di leen gën a seeyal sama cant ak sama mbég ci ànd gi ñu àndee màggal gi maa ngi santaat bu baax maa ngi siyaare euh, sëñ Muntaxa Mbàkke xalif général des Mourides di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér di siyaare bu baax sëñ Cheikh Mbàkke mu sëriñ Saaliw ak mboolem njabootu sëriñ Tuubaa gi di santaat sëriñ mbekki di ñaan